Bonjour euh, amis internautes de la Setsima TV bienvenue dans votre émission préférée Setsima lutte tey nag euh, dañoo doxantu ndànk ba Cité Asegno seet si ndaanaan boo xam ne moom it ràññee nañ ko ci mim réew di xaritu ñëpp nag di xaritu mbër yëpp di xaritu sénégalais yi muy guy gi guy gi nuyu naa la. changement lay fay maa ngi sant yàlla jur ci sant sama ñaari waajur di nuyu sama sëriñ Sina Seck borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg te di nuyu sama sëriñ si Yasek di nuyu sama albu général sama Tijaan nuyu àdduna bi yëpp nuyu sama papa ak sama sama wala Sarr nuyu waa États-Unis ñoom Yambu Njaay Laay Njaay maman Mati Dame Abdou Medina mhm. Ndoy Cuus Boo surtout Boo Gambien mhm. di ko nuyu baax di ko fay di ko gërëm di ko sant ak Abdou mhm. Diouf nuyu naa ñëpp parce que dañ may béggee dañ may safoo su ma demee États-Unis dañ may teral yaatal ma kon defe naa su may wax ci télé rek surtout site internet nga xam ne partout du ñoo koy déglu war naa leen béggee bu baax nuyu sama benn boy mu nekk collège G di ko nuyu bu baax di ko ñaanal fi mu nekk yàlla may ko jàmm bu baax a baax a baax a baax nuyu ñëpp. bëggee ñëpp mhm. macha allah c'est important donc mën nañ jublu ci waxtaan bi. Euh, guy gi est-ce mën nga wax sénégalais tuuti kan mooy guy gi. waaw guy gi benn boo xam ne vraiment dëkk Thiénaba yaroo Pikine màggee Géejawaay sama ami d'enfant yëpp maa ko defee Pikine suma kër turandoo mhm. Bachar Mat Zeng ko ñu sëñ Modou Niang falaa yaroo falaa defee lépp falaa defee suma carrière mhm. falaa langee falaa bëriwetee ànd ak ku jox suma grand Tafa Napoli sama grand Baara ak ñoom Assane Ngom ñoom Youssou Ly ñu bokkoon nekk ci arrêt bi mhm. suñuy grand ñoom Pape Tuuti ñoom Samba ñu tette ñu ñuy dem Touba Dakar xëye fii 3 heures cinq 4 heures mooy le quart dugg Touba 7 heures incha allah 11 heures da lay fekkaat Dakar. Mm. di ko def huit huit ans neuf ans waaw kooku mooy yu jóge fa nag yàlla def moom ma nekk nekk géejawaay mm. di font mbapat yàlla dimbali ma ma nekk tamit euh, di bërintu yàlla boole ma ku ñu wax Aïda Sarr mm. ci tënk rek yàlla def ba jëkkëram gaañu bàcc ma jël sama kër indi ko fa. Mhm. yàlla def ba boole maa ku ñuy wax tamit euh, Wara Sarr nas. Mhm. nas tamit di doom Wara Sarr waaw nas dem ba boole maak ku Wara Sarr. saar mhm. Sarr di yaayam. ñu dem ba mujj gi diggante bi doo bi doo xam ba xam. ñoo bokk ndey ñoo bokk dañoo dem ba ñoo bokk. waaw ñu ko bokk ndey baay. d'accord guy gi fan la jógee tur boobu. waaw guy gi dama doon bëree. au passage di nuyu sama papa Mor Faram. Mm. di ko ñaanal yàlla yàlla yóbbu ko àjjana. yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def parce que mm. moom kenn la ci man quoi. guy dama doon bëree di bëree di simpi di simpi di simpi di simpi. Mm-hmm. après gars naan kii kii comme guy. waaw mm. ah, gars yi jëlee fa guy. voilà ni may simpi mais tuddoon na am na yeneen tur yu ma tuddoon. waaw am na yeneen waaw am na ay turu mbër la quoi mais jëluma ko tudd ay mbër lañ. Euh, turam bëri ma tuddoon mais ma xam ni man ñii gën ñu ma populaire yi gën ñu ma tamit gëm sama bopp mm-hmm. ma bàyyi fa jël sama turu bopp sama yëfu bopp uh-huh. dëgg la d'accord mais gis nañ ne temps yi da nga xaw a raar gëj nañ la gis buñ la buñ la gisee ci làmb balaa ñu lay gisaat yàllaa xam depuis sa victoire bi ba léegi lu waral loolu waaw maa ngi sama coin nekk suma roq nekk ci lu ma war a nekk parce que làmb tamit yenn làmb yi jërul di dem quoi di mm-hmm. manifester wu parce que suñu rakk ñoo fa nekk te boo fa demee waaw waaw boo fa demee tamit te succès dañ koy garder tamit image dañ koy garder boo fa demee yenn booy yi mën nañu ñëw di la tëkk wala nga seq ak ñoom loo xam ne waroo ko seq ñoom ko defee xam nga mun na wàcc sa popularité affaire yooyu mais teewul tamit ñi ngi ci làmb waaw tout récemment def nañ fi li ñu fa war a def mm-hmm. làmb noonu la quoi yi ñu war a dem rek dinañ fa dem parce que dañoo am staff mm-hmm. am ñu ñu demal demal ñu dem ñu dem bàyyil ñu bàyyi quoi mm-hmm. d'accord guy gi mën nañ xam lan lay xaar pour am waaw la lay xaar ko am combat loolu moom des na ci promoteur yi ak saison bi quoi saison bi moo xat. Hmm. Coupe d'Afrique beeg élection yeeg xam nga day xat quoi mun benn promoteur bu jël risque di ci tëgg ko est-ce que bi loolu muy indi euh, année blanche yu bari. rek moo année balance. Hmm. ponkal yëpp année balance. Euh, kon loolu. moo tax taamu loolu Coupe d'Afrique beeg Coupe bi la ak élection yooyu mënul ñàkk. d'accord loolu moom forcé année balance. Euh, tout récemment temps yële rek de gis nañu Reug Reug moom it di champion bu mag ñu ngi koy nuyu de passage mu daal di la euh, tëgg maanaam ñu koy waxatee gëtt xaw ma bàkk ne dafa bëgg a bëreeg yow léegi lan moo tax nga rejeté choix wu Reug Reug boobu. non loolu moom du ma wax ci moom quoi dañ def beneen question. mu dëkk la noonu non naa ci waxaat wax mm-hmm. mm-hmm. ko jotagul pour mu bëreeg man wax quoi. waaw mm-hmm. beneen question. d' accord d' accord beneen mooy que ni tout récemment gis nañ la nga dem jàppale euh, sa mag muy Lac de guerre ci combat bi passé euh, mais gars yi nee nañ dafa daan ñii naan daanu yow loo ci gis. waaw passage di ko félicité di ko nuyu di ko encouragé di ko ñaan yàlla victoire bi jikko di encouragé tamit boo ñaa hmm. tamit boo ñaa champion la ku jël sa avance xam ne kooku am na lu mu yaakaar te it nit la koo xam ne xam nga gëm na li muy def. Hmm. kenn gis gis na làmb ja lim indi victoire la indi woon mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam def na ful la fayda jom hmm. mais yàlla tamit Lac de Guiers juróom la àndal pour yàlla may ko ndam duñ mën lu dul encouragé Boy Niang pour bu amaatee beneen combat ku dëkkat ak Guédiawaye yàlla may ko ndam. donc na ko. waaw Lac daan ko waaw man loolu laa gis te loolu laa gëm même donte CNG mooy suñu kilifa joxuñu foofu victoire tamit mais defe naa bu defaatee recours tamit dina dinañ ko jox victoire. dinañ ko jox waaw mais du tee tamit ñu wax Boy Niang luñ ko warul wax. Mhm. du tee ñu xaxar ko. Mhm. non duñ ko def parce que ñun yarewuñ noonu. parce que bu dul dara sax moom dañuy seetaan ay kàddoom du wax moo ko ci ñun lu ñaaw ku dul man su dul ñun sax du wax ci ñun lu ñaaw kon defe naa ni ñoo comme que ñoo bokk làmb dañ koy rafetal Lac de Guiers magam la wax na ko wane na ko boo ñaa rekkam la liggéey na ba agsi mhm. Lac de Guiers xanaa wax bu rafet boo ñaa na wax bu rafet moo tax ci plateau bi mhm. ma toog ci Lac de Guiers ko na rafet sa rakk la daan nga ko mais na rafet moo tax ma toog ci plateau parce que nit bu daanee ba pare rek wala bu dara amee rek faw am ko ko jege sinon dina wax lu ëpp moo tax ma ne ko bul wax lu ëpp mhm. sa rakk la na rafet am nga mhm. victoire mhm. bu la si seetee nag bu la neexee mun nga wax mais nii nii na rafet waaw di ñaanal yàlla daal vi Lac de Guiers victoire bi jukkoo Lac de Guiers man duma wax ci moom parce que dafa ma jox boppam jox boppam mooy daf ma woo ci combat bi wóolu ma yaatal ma xam nga moro jour boobu noonu au passage di nuyu Sa Thiès mhm. suma rek muy mbër bu ma jox cër Sa Thiès mënoon naa ñëw ñoo dina champion la d'accord mhm. champion la kenn werantewu ko mhm. mais bu duggee ci làmb bu ñu duggandoo da seet ni kii daf ma jox cër boo xam ne nii comme cër bi mu jox magam la ma jox day jël lépp bàyyi kook man mën na ko diriger moo tax ñu ànd boobu noonu keroog wàcc suñu rek topp suñu ginnaaw suñuy mag topp suñu ginnaaw ñu yëngal stade bi mm-hmm. pour nekk ci ginnaaw Lac de pour yàlla may ko ndam te yàlla may na ko ndam parce que Guédiawaye loolu soxla mm-hmm. Guédiawaye benn bopp la mm-hmm. kenn mënu ko xar ñaar chaque jour ma topp di ko waxaat parce que ñun suñu biir ñun suñu biir dara xajul suñu biir loo xam nekk na ci ñu koy nëbb moo tax suñu yëpp di feeñ. Mhm. waaw moo tax nañu bàyyi ak suñu jotul tamit ngeen gën a booloo ndax euh, buñ nee géejawaay xam ne lu yi euh, ñi ci déggoo bariwul tey jot na ngeen def comme waa Pikine ndax buñ nee Pikine ñëpp ay yëngu Eumeu seen mi nga xam ne mooy roi des arènes day jiital ay rakkam mobiliser ñu ñëw stade wàcce ko mais yéen géejawaay ba léegi dafa des. dafa des ci ban côté. par exemple yow sa digganteeg Balla Gaye su ma digganteeg Balla Gaye dama traité ci waxaat Balla suma mag la wala mun naa ne sax magewu ma lu bari mais kàddu la gu rafet goo xam ne ma ne suma mag la parce que boo ne maa ko mag tey nit ñi dañ naan dama ko bëgg a tuutal moo tax man naan suma mag la boo ne tamit du sama kilifa dañ naan kii dafa soxor moo tax dama naan sama kilifa la samay kàddu yëpp nañ ko tegaat mosuma wax ne Balla sama kilifa mosuma moom la yàlla teg géejawaay mosuma wax ne tamit moom lañ jiital mais dama doon waxaat di ko waxaat nit ki fi mu la yem rek nga ko yem man Balla suma lépp la. Mhm. maanaam boolewule boole na ma ci boppam. Mhm. mais loolu wax la moom xam na man xam naa. man su ma masaan jël combat. Mhm. man ak nas Balla dina xam ne man suba laay bëri wala ginnaaw suba laay bëri dinaa toog Thierno Gueye toog Balla Gaye toog ma toog. moom it bu jëlee komba buy bëri noo def dinaa jàpp ci contact yi wala bu ñëwee suba lay bëri dinaa gisante ak moom. mais bu loolu amatul rek mooy kon nit ki fi mu lay rek nga yem mais teewul suñu diggante dara nekku fa. man bu ma doon nafeq hypocrite. am na benn année mu dem États-Unis am koo xam ne foofu dañoo jàppante mu woote. bi mu wootee Balla Gaye laa xool au passage mi ngi may dégg bi mu wootee naan ah non nangam nangam kii daal dinaa ko tëjlu ma ne ko lan la mënu ma non fii la nekk naan amoo kër hmm. nangam nangam ma ne kooku day mbalag rek Balla Gaye mi ngi may dégg kii seetaale Mimi 2000 woon li ñu la waxoon noonu non non pas jàppante am sama beneen booy koo xam ne sama booy la woon di mm. jàppanteek moom mm. naan Balla Gaye moo fi nekk naan amoo kër nangam nangam kii mais man bu ma doon hypocrite wala ma jàpp ko dara bi ma wooyee téléphone danga wax dama ko naan nangam mais ko ni mm. kooku day mbalag rek noonu mm-hmm. kon kiy def loolu boobu dara xewagul kon defe naa ne kon am na loo xam ne man jàpp ma kon bu mm-hmm. demee ba tey ba ñooñu tey mm-hmm. tey expliqué. mais est defal naa defal naa du duggee beneen mm-hmm. détail. kon moom war na ko xalaat ni ku jàpp guy gi démb bàyyi ko tey. ñëw ci mm-hmm. yow. Mm-hmm. mi fi yeewul. waaw parce que entourage ñoo déglu rek ma la ma la garaaw. ki def loolu tey xulóog yow démb guy gi defal ko lu ne mu bàyyi ko tey jàppala tey ngir ay coow. kon mi fiyeewul ki bàyyi guy gi tey dina la bàyyi su wal dina waxal leneen loolu rek laa koy wax ne ko woon ni carrément man suma mag la jàppalu ma ko dara moom it jàppalu ma dara Balla Gaye guy gi buñ mais da ngay gis ñoo xam ni des fois dara day am sax ñu woo ko épponte presse mm-hmm. defal nangam li wala mm-hmm. làmbu lii defal nangam li defal nangam te au lieu que duñ ci dara parce que ñoom bose moo la neex toogal woo journaliste bi ne ko mu tudd ma wala nangam na affaire yooyu amul sens amul sens mm-hmm. wala buzz amul sens mais loolu lépp ñàkk xam sa bopp xam sa ni moo tax juddin dafa am solo doo war boo jaaree va bu normal juddu fi nga war ñu maye sa pap mooy ñu maye ñu maye sa yaay maye comme comme maye xot ba affaire yooyu vaam normal ci sëy yu bëri mm-hmm. dalay jomm quoi mm-hmm. euh, mais am na noo xam ne boo ñu juddoo rek day xaw a day xaw a moo tax nit nit loolu boo ko déggee mooy yarin dafa am solo mm-hmm. ñu yar la quoi dafa am solo am na lu bëri di nga ko ma wax sa sa sa bopp quoi parce que man nit laa nit laa boo xam ne lu nekk sama xol rek dama koy génn quoi léeg-léeg nga gis nit toog sax naan guy gi hmm, dama ko lebal lii dama ko may lii te ëllëg yàlla xam ne yàlla xam na ne amul te ba ma fay defe naa bi may nekk États-Unis daam mi ngi may dégg am na benn booy ma ne ko dama war a ñibbi dans dans dix jours hmm. waxu ko dama soxla nanga mun ma amul problème ba mu bay ñibbi xam naa taxawul hmm. laajaatuma ko daam kase mi ngi may dégg moo mujj jël xaw ma deux cent dollars xaw ma cinq cent dollars hmm. na ma am pour li ma waroon jënd mottali ko. Mm. daam kese mi may dégg mais teewul ka ma doon wax loolu moo demoon toog naan yoral na ma lii yoral na ma la. yàq de te barke Seexu Canaba loolu amul. <laughs> di ko toog ci restaurant di wax moo tax fii lépp loo wax rek. nii mm. dañ ko waxaat mais mais loolu lépp waaw loolu lépp sant <laughs> yàlla tey mais mënoon naa bañee demee mi ko wax sax yaramam war naa daw xam ne guy gi ah. ñi ngeen di àndal bu yàq ñooy defar ñoom ñoo leen mën a yàqal ñoom ñoo leen mën a defar tey nit man na ñëw toog ak yow am lum la wax yow it nga tontu mu génn yóbbu la. ci man de sama boy yi may àndal chaque jour dama ko wax. Hmm. muy sama taalibe ba ci ki nekk Corée j'ai au passage di ko nuyu j'ai hmm. suma rakk la. Hmm. musul ñëw ci man ne ma Balla Gaye nangam musul ñëw ci man ne ma Lac de nangam. j'ai c'est important ba ni mu demee Corée tukki sama taalibe Pape Tonn. Pape Ngato Pape bu guy gi Modou Ndiaye bu guy gi. nas moom waxaala ma ko amul jot boobu mm. nas moom guy gi rek ko ñor benn mbër ñoru ko bu bëree mu dem bu demul li lijjantul beneen mbër nas bu guy leneen li sama booy yi nekk ñu boloo ñu fi nekk amul kenn koo xam ni di nga toog naan may mbër amul loolu moo chaque jour dama ko dama naan leen bu ñëpp meloon ni ñaar ñii mm-hmm. Thierno bu Balla Gaye ak nas bu guy gi mm-hmm. kon mbër yëpp dañu am jàmm Thierno Gueye dama ko naw. Mhm. sama combat ak Siteu day jub si. ñu toog mën na ko Thierno combat bi du ngeen ci jàpp. Mhm. ah du ma jox dara aju ah, xama rek. <laughs> parce que ñun ñoo ko seq man ak Balla Gaye xam ne la may wax. Mhm. man Balla Gaye guy gi Thierno gi ak Nas. ma ne ko du ngeen ci jàpp Thierno ne non man kay bu Omar waxee rek. kon kon kon kooku c'est-à-dire ni kooku mu ne ma man góoma benn mbër man Omar rek laa gëm. Nas tamit comme noonu mais léegi bu nit doon def noonu. bu nit doon def noonu di mbër yi dañu am jàmm mais da ngay gis koo xam ni mm-hmm. bëgg port bëgg baat ci mbër mi mm-hmm. woo mbër mi wax fen fen fen ngir bëgg baat te loolu mm-hmm. amul sens amul sens mais ñun géyaay suñu biir géyaay suñu biir ñun suñu biir au passage du nuyu ñëpp du nuyu pa mama parce que tamit mi ngi ci gérer loolu bu am solo mais li tax ñun boo ñëw booloo dañoo manqué ku mel ni Malick Gakou au passage di ko nuyu Malick Gakou mbër da doon xuloo mu woo leen dajale leen togg ay ñoole leen boole leen may leen xaalis ngeen dem. waaw da ngeen ma man war a sax rek laa gëm ci politique. Mhm. góoma beneen politicien. dëgg la gàkku Gakou nii tey nii nii bu bëgg war a saar turam duma ko tudd ci tele bi. mais dafa bëgg suma yaay ji moo tax may jël référence ci moom. Mhm. man ku dul war a saar gëwuma la. télé laay waxee li lijjantiwuma la sax ngay politique nag laax de. parce que moom fekk fa dara dawul dara mu def ma fa. kon tey bu ma ñëwee tey bu nit ñi xam guy ngay profité pour guy gi récupérer ko nax nga sa bopp. su ma fëggee sa porte sax bul ubbi te du ma fëgg sa porte ma du ma zaar boobu noonu. Mm-hmm. côté boobu laay waxee mais Malick Gakou dafa bokk ci ñun bokku mm-hmm. géejawaay am lu mu service géejawaay même bu doon benn jour teranga defal na ma ko te du benn jour teranga ay teranga ay teranga teranga defal na ma ko kon nit ki bu la defee lu baax booy toog ci télé booy wax war nga koo mën a lim. c'est moo tax ñu wax loolu. moo dañ koo manqué ci benn côté nag. Mm. xam nga Bara moom bu doon day dugg ci mbër yi di def comme noonu dama la koy wax. mais moom li ko ñor mooy nga am combat nga wax mu may la nga dem xamul nit xuloo nga xamul xuloo li ko ñor mooy guy gi. Mm. beneen mbër boo ko génnee télé bi wallaay xamu ko dina dégg coow la rek kon duñ jël exemple ci moom ci côté boobu. mais Malick gàkk mi dugg ci mbëri nag di lijjanti. Mm-hmm. di arranger. Mm-hmm. di jox xaalisam di dem demlante di ñëw. kon moom la ñuy jël référence ci moom. moo tax ma dañ koo manqué. Mm. moo lu bëri mënatuñ ko am ci cadre booloo bi. d' accord c' important te yaakaar naa ne moom Malick Gakou dégg na message bi te dina ci ñëwaat bu baax a baax a baax pour waa Géejawaay lutteurs yi tamit gën a booloo gën a bokk ndey ak baay mais guy gi ñu ñëwaat ci nga xam ne mooy yitteel say supporter yitteel àdduna ndax nee naa la guy gi bu làqee France rek ñëpp bëgg pourquoi France mbër tamit. waaw France mbër loolu luñ programmé la France mbër. lu ñu programme programme mooy lu ñu Malick doo passage di ko nuyu Malick Thiand mooñ ko e, moo ñu ko hmm. intéressé benn bis hmm. parce que maa ngi la Lamine Samba benn naan français bal maa la ko jox ma ko hmm. noonu joxuma ko Malick Thiand moo ma ko jox Malick Thiand moo ma ko kii ma tontu ko mu neex mu neex askan wi ma ne pourquoi may bàyyi lii sama combat Tyson mu wax ma wax mu wax ma wax mu wax mu ne waaw waaw ma ne ko ah, waaw waaw. waaw dafa làkk man làkk ma tontu ko pare ci. Hmm. léegi Sénégal yi bëgg ko nag. Hmm. mais ma xam ni te parce que nekkuma ci xolu Sénégalais yi mais. am na loo ne boo ko waxee di nga nekk seen xol ma xam ne lii neex na leen. Hmm. chaque jour nag gars ko demandé ma koy dund eh, ak ñoom. est parce que namm nañ say français ah namm nañ ko bu baax. waaw mais comme que dañuy def émission rek. dañuy toog wax li nga xam ne moo yitteel Sénégalais yi. Mm-hmm. mais français mbër bu ñu fekkee ñun fu ñu ko war a waxee rek dinañ ko wax mais du loo xam ne dañ koy jël di koo mm-hmm. waaw mais nga may leen ci tuuti rek. di ko non boo déggee ma wax loolu. Hmm. ñun jëluñu français mbër di ko def affaire genre hmm. waxee rek moo tax loo xam ne Sénégalais dañ ko dégg. Hmm. moom fu mu koy wax daf koy ñor. léegi fii nag je pense que dina la ñor yéen message ngay dénk yooyu tax français laa bëgg nga def xëy. non comme li ma la wax rek tey dañoo nekk ci phase boo xam ne dañ leeral askan ñu dégg mais li ma leen dénk mooy ñu booloo nekk benn ñu gëm ni li li li li li passé moo ëpp li des te li des nii vraiment moo ñu mën a indi lépp lu ñu lu ñu defoon erreur dinañ ko fàtte ngir bu coupe bi ñëwee na ñëpp ñaan bu kenn toog du yàq parce que tey ñu lu ñu téye boo bëggee dégg dégg bu mm-hmm. fukki di suul fukki di gas du kii moo ñu téye mm-hmm. mais Sénégal bu ñëpp doon ñaan wallaay xajuñu ci benn équipe mais te li nga gis nit sax war a ñaan nekk ci yeneen ay détails ba ko yàq te loolu àdduna doxeewul mm-hmm. noonu ñëpp mënuñoo bokk dem Coupe d'Afrique ñëpp mënuñoo bokk jël mm-hmm. mais ñëpp tamit mënuñu bokk jël pour ñu ñaanal nit ñi mm-hmm. mais nag ñi demul pour ñu ñaanal leen nit ñaan toog te ña yóbbu leen moo nañ ci def seen fulla ak fayda ba li ñuy séntu mu ñëw parce que loolu laa gëm parce que équipe nationale équipe nationale ñëpp la du équipe nationale kenn tey jii man bu ci guy gi dugal ay milliards. su gagné duñu équipe nationale bu guy gi. équipe nationale Sénégal la ñuy wax. président de la république mi nga xam ne mooy sunu président tey lu mu ci mën a def àdduna ak li ci biiram mm. duñ ñu président équipe nationale bu Macky Sall mm. président équipe nationale la ñu wax équipe nationale du Sénégal kon na ci ñëpp jàpp wooy woyofal xool yàlla pare na yàlla pare na doomu aadama yi nañ xam ne yàlla pare na te bañ di wax loo xam ni wala def loo xam ni nekkul mm-hmm. di envoyé message moytu site internet yi di wax di ratatatat gis nga nit ki boo juddoo fi nga war a juddoo juddin dafa am solo doo topp ci internet dama lay wax lu doo topp ci internet di wax. juddul fi nga war a juddoo rek. boo juddoo va jaar va bu normal bi. di nga di nga jomm nekk va bu normal damay fekk mënul ñàkk nag. saa bu léegi va bu normal mooy ban. mooy li ma wax rek koo xam ne nii yow juddoo fi war a juddoo euh, loolu du waxate la daal ci ci teggin waaye va normal. voie normal boo ci juddoo juddoo ni nga war a juddoo <laughs> euh, yàlla def sëy bi barkeel ñu ñaanal la ñu sëy bi barkeel nga juddoo ci mm-hmm. di nga am yoom di nga topp ci internet bi di wax da koy jomm <laughs> di nga topp tamit di commentaire di saaga nit ki da nga koy jomm mais koo gis muy commentaire di saaga uh-huh. koo gis muy commentaire di wax nangam uh-huh. seetlu ko ba ci biir jaaru ci voie normale bi <laughs> lu wóor lu wóor nag laa neexaloo dégg de mais koo xam dañ laa yar fi nga war a yoroo imagine tey loo bëggoo bëggul ñu def ko sa papa mm-hmm. sa yaay mm-hmm. nga dagg saaga ndey mm-hmm. wala da ngay fen wala da ngay nàngam te ku ko demoon sa waajur léegi nag yow oleka waa sa waajur wuñ koy def du la doo ko lijjanti ndaxte mm. xam nga ni waajur woowu waajur nii la rek parce que jaaroo ci voie normale xam nga ma la loolu mooy. waaw d' accord tey daal jaaro ci waa normal la ñu indil mais nag yaakaar naa ne du ñu tëj guy gi te ñu la sa papa ji nga xam ne yal na ko yàlla yërëm euh, moo wutu temps yi passé muy papa Mor Fadam euh, depuis bi mu demee la la la euh, nouvelle bi def. waaw loolu moom bari na man au passage gis nga léegi rek nuyu naa ko jaale ko. Mhm. ko kenn la woon ci man lu bëri woon ci man parce que mhm. tamit. nit la ko xam ne am na lu mu def ci man daal. Mhm. du ma ko fàtte dañ daan nekk école bi trois cent personnes quatre cent personnes mu jël ci man seppi ma ci ñëw toog di waxtaan ak man wala muy dóor gos dural sama biir bi. naan ma mhm. defal nangam kon xamoon na daa nekk mhm. champion. kon defe naa tey bu lii amee rek. dëgg la euh, du hasard daal. di ko ñaanal tamit yàlla suturaal ko may ko. taw feex fam nekk yàlla dimbali ko ba. bu ëllëgee lim du mu rëcc lu mu doon ñëwee ci àdduna. parce que man loolaa gëm. loolaa nekkoon ak moom. tey moo nekk suma xol te yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def li des yëpp ay détails li détails mooy. Mm. nañ ko ñaanal. Mm-hmm. Mor Faram kenn li mu am ci àdduna jafe na mbën nit ku dund ba pare eh, deete am te amoo ko mhm. mooy ñëpp naan dafa yaru dafa baax kuris gi moo lay wan ni morfaram kat làmb kii kii jot na ci ci ci heure làmb julli mhm. jot na mhm. loolu seede bu rafet la muy muy faatu génn àdduna bi muy julli kurus gi nekk ci loxoom loolu seede bu rafet la di ko ñaanal ñun man moom duma ko jooy tiituma ci moom man kay ci sama bopp laa tiit mais wax dëgg yàlla tiituma ci moor morfaram maa ko gunge biñ koy sànq maa ngi taxaw bi ñu koy jullee maa ngi taxaw. Mhm. ñu ko nangu ci bàmmeel ci laa bokk. Mhm. parce que loolu moom moo desewoon ak moom. te dafa naa neuf ans yoo xam ne mus du ma ni fàttali na ko ci may fu may defee yooyu. mais est du bari na bari na du xaaj. loolu mhm. kay arbitre war a guy gi moo faram ñëw di waxtaan ak moom. wala tey lamba mu toog moom ngay lum. jiliwaat paate saare maa ñoom ñëpp ñu jege ma. Mm. di ma motiver loolu daf may manqué. Mm-hmm, mais tamit adduna euh, demee noonu demal maa ngi yàlla na mm-hmm. yeex. yàlla na ñun daal loolu ñu xam nga. Mm. di ko ñaanal di ko seedeel loolu di xam ni daal wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom bi mu yor bi mu gaañoo tamit kontaan nañ ci moom di wax ni daal fin bi incha allah liñ ci mën teg ci loxo dinañ ci mm. teg loxo te duñ ko bàyyi bu soobee yàlla incha allah. d'accord mbokk internet a ko déggandoo tey seen ko tàmm a tey moom euh, kontaan ngeen yaakaar naa ko lan ngay tëjee. waaw li ñuy mooy loolu rek gërëmaat adduna bépp gërëm suma soxna gërëm sama famille nuy suma yaay sama papa suma yaay nuyu sama yaay Wara Sarr nuyu sama benn grand boo xam ne vraiment. Mm-hmm. Euh, du ma ko fàtte mukk bi muy ñëw sëri ci la may indil muy mambay doomu Wara Sarr. Mm-hmm. la la la la may indilaat sax parce que moom loola la dëkkeek man muy famille Wara saar muy yaare. muy nuyu maman Waré de passage waaw muy mm-hmm. yaare Baye fal Cheikh Fall Tada. mambay nas caama ak seen gore yi ñoom mbaya ñanga sama yaayu turandoo xam nga mareem mhm. aadama yaare ñoom ñëpp dañ muy dañ muy jël def ma mhm. seen xol famille Wara Sarr famille Wara saar famille Wara Sarr man bu wax ci moom dafa am lu may yëg parce que loolu lu ma gëm la man su ma mhm. naree def loo xam ne ci kaw suuf benn doom Wara Sarr da ciy gis boppam jour boobu dama ko dogaan yàlla na ma sunu borom rey su jour noonu yàlla suma borom rey ma faatu parce que man bugguma loolu parce que defal na ma loo xam ci kaw suuf mhm. sas ñi ma bokkal du ni sama papa ak sama yaay defaluma ko parce que lu mhm. gën a jige gën a yey mhm. ñi ma bokkal samay mag samay famille sumay nijaay defaluñ ma ko fi ñu ma téye ñu toll mun naa ni tey suma papa suma yaay sax téewuñu ma fa parce que dañ maa libéré rek mère bi ku noo xam ne sama papa ni mel ci doom wala suma yaay sama papa mënu xëy te woo bu la déggul sax dina la woo la xaw na mais ba mu xoolee soxna si xoolaat ko la pare ci man xool na xam ne man mii man bon bàyyee ko man kon defe naa ni sant naa mm-hmm. gërëm naa leen mm-hmm. sant sama famille sama koñ bii ma nekk nii ñoom prési ñoom dere waaw rawaan ñoom dere bàyyiwuma kenn sama mbokk soxna yi nga xam ne ñooy toogoon ak ñoom ñoom zaan boo yi xam ne fi nekk ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen parce que dañ ma respecté mm-hmm. respecté sama soxna parce que loolu rek mooy àdduna yaatal ma jox ma cër bi lu ma def ñu ne noonu la koñ bi yëpp lañ ma jox cër gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp du nuyu waa États-Unis boo maa ngi koy sant boo nu ma mel. boo nu ma mel deux mille euh, bi may ñëw. kon contre site. forme bu garaaw beeg yëpp boo la. changement bi changement bi. Mhm. yow gis nga li ma la wax waaw mooy li ma la wax ah. ko image yi Sénégal yëpp gis nga ni ma mel boo la. non image yooyu moom ñëpp a bëgg parce que dañ ne guy gi bii moom. boo moo indi loolu moo def lépp sant naa ko gërëm naa ko. moo ma jàpp teg ma lu mét mhm. boo New York di la nuyu baax di la ne yow jàmm rek nga am parce que damaa toog sa yaay ñaanal la te ko sa yaay ñaanal dama lay ñemee kon boo di nga jàng mais doo daanu di nuyu Gambien bu baax a baax a baax a baax Gambien maa ngi lay bu baax a baax ku ma bëgg la ku ma yërëm la bi ñu xamante yàggul mais ku ma respecté di ma defal teraanga budul jeex na Gambien maa ngi gërëm gërëm baax di gërëm Abdou Diouf mi tax ñu xamante mm. parce que man du ma force xamante mm. mais Abdou Diouf moo tax ma xamante Gambien mais Gambien amul lu mu defal di ko bu baax di ko sant di ko ñaan yàlla di nuyu Abdou Medina ñoom Laye Ndiaye Yambu Ndiaye Abdou Minane Laye Ndiaye boo ko déggee ñooñu 2012 ba tey ñu ngi may daal. mu koy def di nuyoo mbër nag. ak di sant mbër waaw sant dina gërëm ak ñoom Ndoye Touche waa États-Unis yëpp ñoom ñoom King ñoom Xaadim sama boy yi ma fekk Sall. d'accord que dafa neex bu ma demee États-Unis ñoom dañuy lépp toog ak man. ndeysaan jàppale la. may pousse 500 kilos kilos di pousse ñuy kontaan loolu uh-huh. damay modifié kon su may toog war naa leen mën a fàttaliku. Uh-huh. bàyyi naa la yow tamit yow si. Uh-huh. vraiment nit ku baax nga bi nga ma woowee ne ma nga def émission bi. dama leen maa ngi ñëw tegoo ci baat affaire yooyu di nuyu sa caméraman bi nuyu ñëpp daal kontaan naa bu baax. yow ñoo far sama góor nga te dafa yàgg di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen ndaanaan euh, ci biir Setsima point net merci beaucoup mes amours à la prochaine bye merci.